Heavy Waves.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 te tay ko tubaab di ko wax coups et blessure volontaire li waral coow li nag mooy man bi ne xale bu jigéen bi daf ko jël course ba noppi lank ne du ko fay ba noppi dal di jël ab objet jam ko xale bu jigéen bi ne araam li taximan bi wax amul moom kay li am dëgg mooy man bi daf ko doon lambatu bëgg ko Baltazar mu jàppante ak moom jam ko way xale bu jigéen bi 19 am di élève en classe de terminal xale bu jigéen bi ne copain moo ko invité yoof naka noonu war koo seeti yorul xaalis ci la arrêté taximan ba ca almadi dal di waxaale moom ngir mu yóbbu ko yoof bu gisee ak copain bi copain bi fay maanaam arrivé payé bi ñu yegsee nag ba yoof xale bu jigéen bi woo copain bi ba sonn jotu ko mu insiste woo ba sonn jotu ko ci la ne man bi yóbbu ma sama kër beneen copain bu nekk ca noor Foire <laughs> waaye kii moom bëri nay copain di ne ko kooku bu ñu demee buñ ko gisee dana fay bi loolu amee man ba jaagar jaagare ak moom wuti Nord Foire malheureusement bi ñu yeggee noor Foire xale bu jigéen bi woo deuxième copain bi ba sonn jotu ko mu insister dal di dugg boîte vocale ñaaw xale bu jigéen bi nag ne man bi bi mu gisee ne amul lu mu fayee ci la ko tàmbalee lambatu waay déet waay si nee na bi mu defee loolu mu dal di koy repoussé waaye waa dëgër bopp mel ni ku ñu xabtal taximan bi yamu fa dee ndax dafa insister ci xale bu jigéen bi dem ba ko foo xam ni xale bu jigéen bi nee na du nangu benn góor yeggu ko fa moom ndaw si ne bi ko waa ji yeggee foofu bëgg ko Balthazar ci la jëlee big bu mu yoroon dal di ko koy jam ci beneen version bi naan chauffeuru taxi bi ne li ndaw si wax dara mu ci li am kay mooy ndaw si def koo jëlee almadi yóbbu ko yoof yof gannaaw bi mu demee yof ki mu doon seet gisu ko mu lagar lagar rek moom yóbbu ko Nord Foire foofu it ki mu doon seet gisu ko sëfoor bi nee si la taxawee nag ne ko dig ma fay sama xaalis mbaa ma yóbbu la police ci la ndaw si dal di génnee mbig dal di ko koy jam ci mbagg waaye ma ne ñii seen kaa moom neexul réglé moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grand corona laa wax étudiant bi tamit li mu def jéggi na dayo de étudiant bi dafa jóge village ñëw ndakaaru ba mu ñëwee ndakaaru nag nekk ci seebi ne jaay na ba doon fi génn ak benn waay ba jëlee ci ëmb ma ne étudiant bi ba mu ci jëlee ëmb di ko nëbb di ko nëbb ba ci biir ëmb ba waay bi nekk ci sëy bi continué di nëbb am ñaari weer xëy wasin <laughs> law law tel sëy ñaari weer nga wasin mu doon doonoon seen xibaaru bës di daje beneen yoon ci yeneen xibaaru bës réew mi li fi am kenn mënu ko wax